mais ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ndax tey bisu mbégte la tey képp koo xam ni yaa ngi mburkaat mën nañoo wax ni bisu tey bii bisu mbégte la bisu kontante la bisu cant la ndax tey loo doon daw lu mat ñaar fukki at ak lu teg tey bis bii ñëw tey mu sotti loolu sant yàlla weesuwu ko waaye nag dañuy sant nag bu baax a baax di sant yàlla bu baax di sant nag euh, fi nga xam ni jaar nañ fa yëpp muy ñi nga xam ni jàpp nañ ci liggéey bi yëpp ñu ngi leen di sant di sant le gouverneur de la région bu baax a baax a baax ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax ci taxawaayam dañ ko seetee dafa am vraiment taxawaay bu ci am ñu ngi lay sant bu baax a baax monsieur gouverneur de la région di sant bu baax a baax la préfet Moussa Diagne ñu ngi lay sant di la gërëm di la kontaane bu baax ndax taxawaay bi gis nañ ko rafet na lool ndax mbuurkaat bëri woon na coow bëri woon na situation waaye ñu ngi lay jaajëfal di la sant waaye di sant nag le ministre Augustin Tine ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm parce que seeti woon nañ la vraiment di sant nag le président Siré Dia ñu ngi lay nuyu di la sant bu baax di la gërëm ndax moom day sunu kilifa tey bu ñu toogee fii di wax am na lu bari loo xam ne defal nañu ko te saay su ne fu ñu nekk dinañ ko ndamoo dinañ ko fësal kon DG Siré ñu ngi lay sant di la gërëm di sant président Ousseynou Diouf ci taxawaayam bu baax a baax a baax a baax ndax mburkat biñ fiy def marche Ousseynou Diouf dafa ñëw ànde ko ak ñun dugal ci loxoom jàppale ñu depuis boobu ba tey coono bu ñu am Ousseynou Diouf ñëw àndee ko ak ñun kon président Ousseynou ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di sant nag bu baax a baax ministre Yankhoba Diattara bu wër a wër wër a wër di wax ni ministre Yankhoba Diattara ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ci sa taxawaay waaye it ci enga ci sa engagement bi nga xam ne am nga ko ci sunu kilifa gii nekk ci biir di sa Seck

ndax keroog ba ñu duggee sa kër gi jour boobu la sunu aajo faju ñu lay sant bu baax nga nekk borom yërmande kon président sa Seck Cees waay dañ ko war a gën a taxaw waaye dañ ko war a gën a dooleel waaye dañ ko war a mën a gën a nag défendre ci lépp parce que lépp loo xamante ni bi def na ko Cees waa ak bëgg askanam ak bëgg Sénégal moo tax mu nekk ci kon président sa Seck ñu ngi lay ñaanal yàlla jàmm dina lay ñaanal yàlla tawféex di wax ni ñun askanu dina dinañu liggéey lépp lu ñu war a def dinañ ko def ba yëkkati ndam li teg ko ci sa loxo nga jàllaleel ñu ko ci suñu président de la république ñuy wax ni ñun mbuurkat il faut que saay su ne ñu wax ko ñun mbuurkat sunu électeur dafa tas kenn ku ci nekk fa nga nekk def fa liggéey bu ama am solo sunu électeur dafa tas xamna ni buñu bu ci loolu monsieur le ministre dañ ci waxtaan pour mën sensibiliser sensibiliser lepp lu nga xamante bi dañ koy def ci côté boobu pour transfert électeurs yi ndax kenn ku ci nekk daanaka fa nga nekkoon fa ngay voter mo waral liggéey bi nak travail à la base bi wa mbour kat war ko def ci côté bépp ndax Thiès centre de vote yépp dañ ko wara ndar képp gagné ko di sante nak suñu kilifa yi balaa parce que dama leena a won ma ngi ciy jégalu bu baax. muy ancien président yi yi nga xam ne jaar nañu mbuurkaat muy Pa Diallo moo fi njëkk a nekk président ñu koy sant bu baax di ko jaajëfal di ko delloo njukkal bu baax a baax a baax a baax di sant ñoom Souleymane Jémé ñoom it jaar nañ fi def fi liggéey bu jaar a jaar yoon kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñoom Mbaye jaar ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaye di wax ni sant nañu waa mbuurkaat yëpp kilifa diine yi fi nekk ci dëkk bi yëpp sant nañ leen kilifa aada yi nekk ci dëkk bi yëpp sant nañ leen autorité locale yi ñu tuddul yëpp sant nañ leen gërëm nañ leen vraiment di jeexale ci président Idrissa Seck gars yi nañ leen gën a am taxawaay gars yi nañ leen gën a am taxawaay élection ren bii élection mbuurkat la waa mbuurkat nañu wane seen détermination waa mbuurkat nañu wane seen ngor waa mbuurkat nañu wane seen teranga ndax teraanga ku la ko defal nga fay ko te loolu mooy dëgg nañ leen gore parce que tey après élection suivi dafay am te c'est très important kenn ku nekk porté ko wax ji bari na coow li bari na waaye tey mbuurkaat ñoo war a taxaw relever le défi na leer nag kon maa ngi ñaanal ñëpp jàmm vraiment lu duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin li maa ngi leen di jaajëfee lool yéen ñëpp merci beaucoup. jërëjëf kon. Euh, Assalamu alaikum. bolomi mangi yeketi ay kàddu nuyu ak kàddu ziyara ci turu suñu suñu suñu président suñu responsable le président Idriss Seck ma koy jébbal Warni, di président mu ngi Muglen di ziara di leen masawu mais également président mu di sant di Gurum, gërëm di leen sant ci teewaay bi mais également ci mobilisation bi wante ñu commencé di sant borom bu baax bim nous suturaalee ba fait que bis bu mel nii ndax wax ngeen ko sànq li nga sant suñu borom mais également gërëm président du Seck ak son excellence le président Macky Sall loolu defe ni Pape Cissé lu mot ñaar fukki at yéen a ngi daw ci décret borom nañu ñu bi président de la république xaatime kon ñu sant que suñu borom bu baax a baax a baax wante loolu nag dafa Pape ci ñi mu jaar bëri na moo tax nañu sant ñëpp gërëm ñëpp président Idrissa Seck bërki démb bi yàlla dogalee démb décret bi daanu président de la république yónnee ko ko daf ma bind message daan ni sant suñu boroom mais également gërëm képp koo xam ni dox na ci wax na ci ba tey yàlla sottal ko kon sant na ñëpp gërëm na ñëpp kon président sant na ñëpp gërëm na ñëpp Pape Cissé lim na turu président yi jaar yépp ci bopp collectif bi mais également képp kuy kilifa Thiès nga mas a nekk ministre mas a nekk maire mas a nekk député mas a nekk responsable politique foo mënti bokk mas nga dox am yéene ci mbuurkat yàlla nag suturaal na président Idrissa Seck mais également ak président Macky Sall. ci seen loxo la mbir mi jaare ci la mbir mu soté kon loolu ñoom yàlla sutural na leen mais également sant nañ ko suñu borom mais également ñun war nañ leen gërëm ndax li nga xam ne président la république def na ko ànd koog président Idrissa Seck sagu Thiès la ndax defe naa ne également Sénégal am na ñu bëri ñoo xam ne am nañ problème yu mel nii su yàlla dogalee ci mbaaxu suñu borom mais également ci générosité wu président de la république ak menani naa ni xolam bu set ak xolam bu mais également nangul gu nangul président ce sec ak cër bu mu ko jox lolou nga xamni ni yéen ko doon dox yalla jaarale ko ci ñoom ba mu sotti ñun ñepp war nañ sam suñ borom mais également ñaanal leen suñ borom kon war nañ ñaanal président ce sec ñaanal président Macky Sall yéen yu rafet ak yéen yu yaatu yi ñu am ci Sénégal yalla mottali ko jàmm defe ni li day wane rek ni taxaway bi président Idrissa Seck amone ci Thiès amone ko ci Sénégal tey la ko gëna a wa Thiès tey la leen gën a wan ngi seen wét yéen wa Thiès lu ngeen am comme problème lu ngeen am comme soxla dina ko nekk ci wetu waa Thiès ba mu sotti te loolu yàlla suturaal na mais également li wane na ni la nga xam ni mooy engagement yu son excellence monsieur le président de la république jëloon depuis plusieurs années pour accompagner wa Mbourkat régulariser cette situation président de la république lolu mu yéene won engagement yoy mu jëloon yalla suturaal nako ko ba mottali na ko kon président tamit war nañ ko sante gërëm ko muy son excellence le président Macky Sall gàcce ngalaama président de la république. té lolu yalla suturaal nama tok na à maintes reprises mu wax ko daan ni dinañ ko def président Idrissa également dox na ci ay djégo yu bëri ba yalla dogal fan yi mu relancer wat ko ñu dox ci battu tay yalla sotal ko kon nañu sant suñu borom bu baax kon pap dama lay féliciter encore yow tamit war nañ la féliciter pap Cissé ndax sa taxaway sa engagement sa yéene ci murkat 4 ñëpp gis nañ ko pap kon pap félicitations vraiment taxawaay bi rafet na engagement bi yaatu na te yàlla sutural na la yaakaar ak yéene bi wa murkat amon ci yow yow doon nga am ko ci murkat yalla yàlla ko kon santal suñu borom bu baax ñun ñëpp sant suñu borom mais également ñu ñaan suñu borom. li nga xamni ni kilifa yi defal nañ ñu ko muy yena ak teranga yal nako yalla barkel yalla yal na lek suñu mour lay ñun ñep nek mour lay wa Thiès mais également mbour kat yep en tout cas lool lañ leen bëggon wax rek di leen sant di leen gëreum di leen wax ni tay le président Idriss Seck gëna am fierté ci wa Thiès tay le gën am fierté and ak président la république tay le gën am fierté joxante ak loxo président la république ndax man woor nañu ni mom ak président de la république sen yene ci Thiès sen yene ci Sénégal Moi, le Sénégal am comme soxla comme un mébét Nous taxaw ci jël ko en charge de manière optimale pour naa ne nous na le début bo xamni ni Thiès xel war na mëna dal ci li nga ni le président Idrissa ci ko ci Sénégal un ko président de la République pour Thiès ak Sénégal jëm kanam ñuy sant ñëpp di waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wabarakatuh, barakaatuhu mi yaakaar naa kàddu yi du gudd ndax liñ fi wara wax yeb wax nañ ko waye damay fatilu ko ben jour may def émission 7TV journaliste bi poser ma ben question muy question bu am solo mu andu ma àndu président Macky Sall ak andu président Idrissa Seck ca Thiès lo len ci xaar. mu ne ko liñ ciy xaar mooy le président Idrissa Seck nekk une oreille attentive auprès du chef de l'État tey tontu boobu ma ko tontu président Idrissa Seck jëfee na ko ci fii ci Mbourkat ndax nag bu fekkee président Idrissa day ànd ak président Macky Sall te mënu koo jottali benn problème mu Ceesuwaay kon dinañ laaj lañ moo waral ànd bi waaye tey président Idrissa Seck sagal nañu. président sa Seck décanté na solution bu mag président sa Seck wan nañu ne kat moom àndam ak président Macky Sall soxla Thiès yi soxla Thiessois moo ko waral kon grand une félicitation au président sa Seck ñuy féliciter itam le ministre Augustin Tine dox na ci sonn na ci wax na ci mais un grand merci au ministre ba Diattara li tax ma ne un grand merci au ministre Yankhoba Diattara ndax même bi demb bi ñu yégee ni signé nañ ko gaay dañ doon wax naan mbir mi amul du dëgg ay naxé mbay la ma ne leen bu Yankhoba yexé ay këyit bi yëkkati ko wal len bo baba werante dina jeex te werante jeex na kon yeen wa waa kat liñ leen di wax mu lan président Macky ak président Idi bu mu leen gën goré gore nak yeen bi la rek bi modi lan yenen assainissement yi dina ñew lampe yi dina ñew courant yi dina ñew ak yenen ak yenen dina ñew kon nak nañ leen fexé ba jox au deux président une large victoire au soir des élections maa ngi leen di sante di leen gërëm jërë ngeen jëf merci. xana di feddale rek suñu kóllëre di fësali suñu mbégte bi ñu yàlla mayee ñu taxaw tay euh, fekke li nga xamni événement bu rëy la euh, di associer wu ci remerciement yi nga xamni ni da nga ko def ci kilifa yi ci dëkk bi commencé ci monsieur donc le président Edouard Seck en passant par ses ministres ba suñu rakk ju baax ji mais di terminer par le maire Tal Silla. nga avons ni liggéey na ci lu bëri nous avons ni man mii ko parce que Yalla dafa fait ce bi mbir mi amee Talla Sylla nga xam conseil spécial du président de la République l'audience. audience ñu war leen recevoir présidence de la République man mi topp ci Mahmoud Saleh man la waxoon ma ñëw présider réunion bi man ma recevoir woon collectif bi présidence ni woon leen it président Macky ku ko xam xam ni du xañ njabootam ku yaatu gannaaw la ku social la du koo xam ni day xañ doom di jox doom population sénégalaise bépp ci njabootam la te bu ci bu soobee na seen xel dal parce que suñu amutoon ndigalam duñ leen recevoir fi ci palais bi ci engagement bu mu ci mënti jël dina ko respecter boobu ba légui ñu tek ci ay wër ñu am inauguration KMS 3 fi ngeen yoré seen pancarte mun leen yéen wa Mbour 3 Mbour 4 je prends sur moi l'engagement que la forêt classée sera déclassifiée ngeen tàcc donc tay ji su yalla défé mu matérialiser lolu dafay rek liñ wax ni ndox toujours ci yonam lay jaar président Macky Sall engagement bu mu jël ak population sénégalaise dakoy sam kula dig ndekki nak kula jox ndekki su la digee añ wala reer war nga ko gëm gis nga fi population bi toll ci monde bi gis nga ni crise bi toll manam njëg yëpp pratiquement dañ leen subventionné tay ji bo xolé prix prix denrées de première nécessité bi dans la sous-région nga comparer ko dëkk yi nga xamni ni dañoo wër sen njëg par rapport ak Sénégal jéggi na dayo jéggi dayo bo xamni ku weddi rek na nga jël sa téléphone nga woté ci sous région bi té loolu lépp nag yërëm population sénégalaise nek kilifa gu mat sëkk comme ni nga waxé motax lépp lo xamni ne suba ba ngoon jot da koy poser comme acte bien-être population bi kase moko waral so gissé dossier bi xawa yeex ni sax li nga wax mo ci mo ci mo ci mo ci moo ci newoon non seulement il fallait que ñu déclassifier lu ëpp loo xam ni kenn du ne am naa kii mais aussi il fallait que ñu xalaat aménagement bi parce que déclassifier forêt te xalaatoo ni population bi dëkkee xalaatoo nan ngay defee implantation yi ba am ay aménagement ak lépp soo ko defee day indi ay filxo ak ay jafé jafe donc xaj réflexion bi foofu la nee mais décret bi bañ ko xaatimee ba signé ba war koo signé sax yàgg na lool loolu lii kese moo ko waraloon donc lepp nañ ko delloo ci président Macky Sall diko gëreum ñun ñi dëkk Thiès de li fierté la gu reuy ci ñun parce que suñuy rakk fi nek suñuy jarbat ak suñuy jigen daan seen doole naam ba am ñaar dërëm ko terrain donc tey jii bu yalla défé ku ci nek la nga xamone ni moom nga yello ñu delloo lako lolu satisfaction la bu reuy parce que saa yu ñu xëyee dajeeg yeen jëlone engagement ferme di nañ ko déclassifier donc su défé li ñun la ko rawati na ñun ñi nga xamni ñoy responsable ci SOS di ko gërëm nag di wax ni pour ñu delloo ko njukkal lenn kese nañ mën a def mooy jox ko majorité donc ku nekk ci ñun ku nekk ci ñun tey jii war ngaa mën a nekk ambassadeur u Macky Sall parce que lii mu def lu ne fang nag kenn du ko jeex waaw te lépp nag ci dans le social lii la fi nekke

dem na UNESCO ñu leen bu fekkentee ne xaalis bi ngeen joxee pour njàng dañ ciy dugal affaire góor jigéen téye leen ko Barack Obama ñëw na fi mun na ko ñun mënuñoo légaliser góor jigéen premier ministre Canada ñëw na fi mu wax ko lépp ñëpp di dégg yaakaar naa ni kon lim ci wax doy na sëkk wax dëgg yàlla xaw ma lan la ci war a waxat waaw donc l'affaire Gana Gueye et consort donc mbir mi leer na nañ problème bi li fi nekk mooy am na ñu am programme am na ñu nekkul ñu amul programme ñii nag dañuy gàmm ñii di raas dem out. <laughs> Uh ah.